dafay torlu à des moments historiques moment historique boobu la ñu toll. asalaamaaleykum ami cher indona yéen i di seetaan les patriotes tv dal leen jàmm xibaar li gën a fës ci xibaar yi nag gannaaw li nga xamante ni moom moo ci Babacar Touré nag dañ ko placé sous contrôle judiciaire maanaam daal amatul droit génn li nga xamante ni moom moo di si dëkk bi ba tax nag yéen moom moo di Babacar Touré démb nag dafa amoon problème sonn sonn ba mujj gi ñu évacué évacué kiyee ko fële sa hôpital bi nga xamante ne moo di euh, principal ba tax nag ñu bari mu jaaxle lool ndax Babacar Touré ba muy dem wuyu ji dara dara jotu ko kon nag lan moo ko war def si diggante ba ñu war ko mun a yóbbu li nga ne moom moo di hôpital principal ba ba tax nag tey ji mënut a yeggali lool si lañ ko placé sous contrôle judiciaire amul droit génn nga xam ne moo si dëkk bi comme Ousmane Sonko luñ ko defoon na ba tax nag gars yi ñu fàttali bu baax a baax le 16 mai bi ak le 8 mai bi di protéger Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang le 16 mais bi di protéger sonk Adji Sarr ba tax nag patriote yëpp a ngi koy waajal te Ousmane Sonko nee na bés buy dem na ko patriote yëpp yëpp daal di gunge bu baax a baax a baax yaa ngeen